coow lu tukkee ci de loi buy soppi article 31 bu charte ndey réew mi task force républicaine di xamle ni njiitu réew bu Sénégal laalewul benn yoon ak bile de loi. comme ni ko waxee ci texte donc euh, initiative la boo xamante ni nag mu ngi jóge ci ay. député yoo xamante ni dañu tënk ci benn groupe parlementaire ñun ñëpp di sa doon ko. naam tudduñu ko waaye Néné Fatoumata ak i ñooñam jàpp ni PDS moo indi bile proposition de loi ca pencum ndaw réew mi mu di proposition bi nga xam ne ni gannaaw bi ñu ko voté daa daal di tuxal bés bu ñu war a amal joŋante falum jiitu réew mi te bu ñu sukkandikoo ba tey si ñoom loolee doon sàkkute ñeneen ñu fare ci l'opposition bi. xel mënul nangu ay nit ñoo xamante ni bu di wax waxu report bu guddee seen wax yëpp report la bu bëccëgee seen wax yëpp dem élection kon nag loolu ñu jàpp ni du attitude bu responsable. ñu jàpp ni it njiitu réew mu Sénégal dafa def rekk li ko yoon may ak i sañ-sañam. bañ li nga xamante ni ni mooy réeroo am ci ay institution réew bi moo tax mu abrogé décret bi nga xamante ni dafa convoqué woon corps électoral may assemblée mu def liggéeyam. ba gannaaw bu député yu fare benn bokk yaakaar voté bi la proposition de loi waa task force républicaine di rafetlu taxawaay bi nga xam ne ni moom la ñu am ndax jàpp nañ ni sàmmante nañu ak règlement intérieur bu pencum ndaw réew mi.